mesdames messieurs internautes de Dakar maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen wax ni dal leen a jàmm seen émission bi nga xam ni chaque fois ñu daal leen di dalal ay ndaanaan yoo xam ne dañu remarqué seen milieu et cette fois-ci aujourd'hui j'ai accueilli un grand percussionniste suñu ko waxee maanaam tëggkatu sabar waaye celui qui est toujours derrière Wally Balago Seck ci orchestre boobu di daan waaye itam nekk président association mouvement ci lañ ñëpp di leen wax mu association géwél yi waaye am na noo itam di mouvement ci lañ su ma waxee loolu xel yëpp day dem ci l'incontournable le percussionniste borom tëgg tëggkatu sabar bu macha allah ak euh, mën nañu wax taasukat yi itam muy Mbaye Sy Ndiaye moom laa dalal tey fekk ko ci studio euh, pour une grande surprise ñu fekk ko mu nekk un un technicien tey nekk un ingénieur de son waaye nekk tamit percussionniste mbay si moom laa dalal euh, gannaaw loolu dinañ ci waxtaan bu baax a baax a baax Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax di la bàyyi nga ndoroog internet yu Dakar Buzz. maa ngi lay nuyu Big Taf. Mhm. di nuyu ñu ñuy seetaan. suñu soppee yi suñu xarit yi suñu fans yi ñëpp mhm. à travers Dakar Buzz mhm. di nuyu suñu sëriñ mhm. sëriñ Sidi ah, sëriñ Seexuna mu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulaat di wax ni wax dëgg yàlla di am mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak suñu soppe ak suñu xarit yi ñëpp incha allah di wax ni tey daal dañoo fas yéene waxtaan waxtaan bu am solo mu jëm ci askan bi waaye tamit jëm ci ñi nga xamante ni ñoo comprendrewul ñëpp voilà tey nag dama lay yee parce que xam naa ni euh, or mi tëgg beeg yooyu yëpp yaa ngi fanaan studio H24 donc démb mu guddee tey ma ñëw yee la nii rek moo tax tey danañ naan café ba sonn d' euh, accord Mbaye Sy damay damay ñëw directement parce que kenn dootul demander kan mooy Mbaye Sy ak ay carrière am loolu du lu ñuy laaj ci parce que wax nga ko waxati nga ko te fës na depuis Baara Mbaye Mbuur ak Bër ba léegi moom lu ne xew na fi waaye dañu gis mbay si ci anam ci benn mouvement ci lañ ñëpp doon wax mouvement géwél yi euh, euh, euh, mouvement ci lañ ak mouvement géwél yi dafa am différence wala benn la. waaw mouvement bi ay géwél ñoo ko dirigé. Mhm. mais xam nga tey nit ki looy def rek. Mhm. dafa war a nekk lu yaatu. Mhm. parce que tey bu nee rek géwél yi. dañuy xaw a tënku rek. d'accord ci ñu nga xamante ni ñoo nekk géwél. te wax dëgg yàlla ñun bu ñuy viser dañuy viser loo xamante ni dafay yaatu. parce que tey. culture dafa yaatu. du rek géwél bi rek moo ci nekk. di tëgg wala du moom rek moo ci nekk di way wala du moom rek moo ci nekk tey di jouer tey ñu ngi nuyu bu baax sunu frère sunu mag bu euh, ku mel ni Moussa Traoré. xam nga tey Moussa Traoré bien vrai que tey ci biir géwél yi ci la yaroo mu nekk nit bu baax waaye nit bu mën lu muy def. et temps tey du géwél. xam nga ngay gis tey koo xamante ni batteur la. day nekk géer. Mhm. wala mu nekk leneen. mais day nekk ci biir musique bi. Mhm. di ci marqué empreinte am ba ku gis sax da yaakaar ni xaj na. parce que parfois ñëpp nga géwél géwél léegi sax. non non du géwél géwél lu. Mhm. mais tey euh, mooy dox. te aar dafa yaatu. tey am na ñoo xamante ni nekkuñu géwél. xam nga tey nekkuñu géwél. mais dañuy yëngu ci wàllu aar ba sax di ko dàq sax géwél yi. d'accord parce que tey mën nga gis guitariste. parce que gars yi jàpp nañ ni képp ku ñu gis rek muy joué dara rek géwél la war a noonu déedéet. Mm-hmm. tey man am naa ay xarit yoo xamante ni tey dañuy joué guitare te amaana ñoo koy sax dàq géwal yi tey am na ay waykat yoo xamante ni dañuy mën a way lool. mais est-ce que ku dul dina tëgg sabar. amee ah, mais hmm. bien sûr. am na fii ci mim réew. waaw mais du fi jeex. ah bon waaw. yi macha allah. Hmm. tey loolu dafay dafay am importance mu ñu leeral ko. Mm-hmm. waaye mouvement mouvement ci lañ. Mm-hmm. lan moo waral création bi lan moo waral ngeen ngeen ngeen ngeen teg ko. très bien kontaan trop ci li nga posé question. Mm-hmm. mouvement ci lañ li ko tax a jóg mooy ñun naka jekk dañu mës yaakaar ni. wala ñu mës a bokk ci lépp loo xamante ni tey dafay jëmale réew mi kanam. d'accord maanaam réew mi ñun ci lañ. ba tax na. tey équipe nationale sax bu waree football ñu sentir que ni euh, xale yi soxla nañu morso boo xamante ni dafa war a gunge xale yi pour ñu dem football yi pour gagner. d'accord ñun dañu daan jug am na morceau bu ñu defoon tuddee ko Allez les Lions. Mm-hmm. ñu defoon ko fii ci studio bi. ñin mm-hmm. product gi ñu nekk. Mm-hmm. man ak Fallou sama rak nga xamante ni tey mooy Benjamin nekk euh, di jouer clavier. ñu defoon morceau boo xamante ni dañu dajale woon Tarba Mbaye Sidi di El Hadj Kayta. Euh, euh, euh, Momo Dieng Momo Dieng. Mandiaye Seck xam nga ndax Bambali xam nga su ma limee sax dinaa am ñu ma fàtte. Ah. mais ñi ma fàtte nañ ma jégal. Hmm. ñu def morso boo xamante ni ngin product moo koy def ku ne xam na studio dafa metti hmm. mais dañuy débloqué xaalis bu weex tal woo musiciens yi fay leen dem woo ñi nga xamante ni ñooy tourné clip. Hmm. ñu tourné clip bi def ko pour gunge ci xale yi. tey bu tey événement bépp bu boo xamante ni rek am na. ñun mhm. Prodac dafay jóg génn ay moyens débloqué ko gunge ko ak événement boobu. loolu moo leen topp ba ci ba ci ci lañ bi. la preuve. Mhm. bi nga xamante ni tey son excellence président max Sall ñu ngi koy nuyu bu baax. Mhm. bi mu génnee ni am na lu xew. parce que corona dañ ko daan dégg rek. mu jeg jeg dugg ci si réew mi. dañuy càpp rek président jóg def li nga xamante ni mooy rôle kilifa gu xamante ni. xëy na tey gis dara ci këram. bi mu nee càpp ni xam nga am na lu xew. ñu mm-hmm. koy woowee coronavirus dugg si na ci réew mi. Mm-hmm. daal di woote tag état urgence. Mm-hmm. ñu daal di décret daani ni euh, couvre-feu. à njiitu réew. mi nga xamante ni tey moo jug wax loolu. médecin yi xam ne lii seen domaine la ñu jug. artiste mooy troisième personne bi jug. pour xeexle leen ci seen combat. ni président parce que tey tey ñoom dafa am nu ñuy waxee. mooy du ñuy génn wax benn quatre minutes cinq minutes wax lu gaaw loo xamante ni tey xaj na am na ñu koy comprendre mais tey am na ñu ko dul comprendre. waaw parce que ci la Ouzin Mbaye ñëwee tamit comprendre lul moom. xamalax mm-hmm. mais dafa am ñoo xamante ni dañuy après dañuy bëgg a laajte lan la président wax. waaw artistes yëpp dañoo daal di jug. Mm-hmm. ni ko président waxee ak ni ko docteur yi waxee ak ni ko police waxee. Mm-hmm. xamal leen nii leen couvre-feu jot na. Mm-hmm. am na à partir de huit heures. tey mm-hmm. boo dégloo tey sunu morceau bi wala nga tegal ko tey jii ñu ñuy seetaan. Mm-hmm. huit heures bu jotee. police mi ngi ñëw demal toog sa kër médecin yi nee na ñuy jëfandikoo lii nañu raxas loxo yi mu set nañu moytu lii bu amul joxe loxo amul nangam ak sàngam. expliquer def lépp sensibiliser jàppale leen ci combat bi. tey mu ci lañ ci loolu la ñu njëkkee. mais nag bi ñu demee ba nga xamante ni tey jii trois mois jot na. président génnaat ni il faut apprendre à vivre à, à vivre avec, le, virus xam nga le mm-hmm. virus. Mm-hmm. nit ñi ñëpp xam ni kon wax dëgg yàlla. Mm-hmm. affaire bi dañuy obligé dëkk ak moom. parce que ñoom ñoom ñi woote woon tey. état d'urgence wala ñu woote woon couvre-feu. dañu yaakaaroon ni affaire bi dafay dugg rek génn. waaw day ñëw rek xeex xamal gaa yi xeex ak moom mu génn. mais gaa yi xeexal nañoo ak moom trois mois. tey police amul lu mu dajul. docteur yi amuñu lu ñu dajul. Mm-hmm. bien vrai que ni ñi ngi am ay résultats mooy xam nga ñi ngi faj gaa ñaa ngi wér. macha allah mais nag ñoom mm-hmm. tey ñoom tey li ñu souhaité woon mooy affaire bi génn fi ba jeex fi. comme nag génn fi ba jeex fi. Mm-hmm. ba tax ñi ngi wutal nit ñi ay solution pour ñu génn dem liggéey. tey di sant yàlla bu wér parce que réew mënut a dox te ñaan amul. kon jàkk yi ñuy tëjoon. buñ ko tijjee suñu xel dafay gën a dal. waaye tamit bu ñu demee ba nga xamante ni tijji nañ salle de sport yi. tijji casino yi. tijji li nga xamante ni tey moom mooy. restaurant yeeg restaurant yeeg yooyu mm. mooy ñi ngi wutal nit ñi ay solution pour ñu mën a dem liggéeyi. Mm-hmm. oto yi ñu ngi daw. ak mm. leneen ak leneen ak leneen ak leneen. d'accord xam nga ñu nit comme ñoo bokkoon ak ñoom ci combat bi. te géwal bu toogee wala artiste bu toogee. Mm-hmm. trois mois liggéeyul te ku ne xam na ni artist amul budget boo xamante ni tey ji da koy denc tey li ñuy xeex ñun du pour ñun mais dafa am suñuy rakk yoo xamante ni. yaakaaruñu ci lu dul. seen wàllu aar tey fecckat bu ndaw bi. yow xam nga ci dara man xam naa ci dara. bëngoo maan bi nga xamante ni tey kenn xamu ko. te mu ngi toj mbedd mi. tey tëggkat sabar bi nga xamante ni ci mariage ngénte tànn béer ci loolu la daan dundee. tey tëggkat tama bi nga xamante ni ci loolu la daan dundee. ñooñu tey jii fa lañ jëm ñu ni comme ñun bi état soxlaa koo xeexle dañoo sol suñu dal jël suñuy moyen enregistré jàppale leen ci seen combat. Mhm. gis nañ ni trois mois. artistes yi tamit sonn nañ tey du ñoo mag ci géwél yi pour waroon a jug di ko xeex. Mhm. mais comme gis ñu kenn ku ko xeex ñu ni pourquoi pas parce que dañoo am ci réew mi. baat parce que dañ fi am carte mais est ce que bi bu ma déggee say wax du yéene ci mag waaye initiative bi ci yéen la jugee. Mhm. est ce que euh, euh, déggoo ngeeg ñi ci mag comme je parle de Mbaye Dieye Faye ay salaam Diallo est ce que déggoo ngeen ceeg ñooñu. waaw xam nga nag man nit laa koo xamante ni bu ma jugee di def dara. Mhm. parce que tey ba may jug di dem di def mo. Euh, morceau pour ñu ànd ak état. est-ce que dama leen woo woon ñoom ñi leen dañoo bëgg a def morceau pour jàppale état def ñu woon loolu non. Mm-hmm. parce que bien vrai que ni ñooñu suñuy mag lañ. Mm-hmm. tey ñoom bu ko diriger woon ñun du ñu wootewaat ci ginnaaw de. dañuy àndandoo ak ñoom ci seen combat parce que dañuy xam ni. ñoom donc yéen leen leen quoi ñun. non non dama ni. Mm-hmm. xam nga dama bëgg ñoom ñu comprendre li may wax bu baax. ñun tey du dañoo mag ci yëf yi ba tax ñu ciy woote. du dañuy imposer ci yëf yi ba tax ñu ciy woote. Mhm. tey réew mi képp koo xamante ni da nga dëkk rek da nga am part de responsabilité. Mhm. parce que ñun fii lañ juddoo am fi mhm. dara nag boo ci bokkee doo xaar ku la ci boole. d'accord dama ni ñoom tey bu fekkoon ni ñun dañoo jug rek xëy dégg leen ñoom. ñu ni dañoo bëgg a def nangam tey yow li nga ma laaj mi ngi mel ni rek nga ni ma tey est-ce que tey bu élection jotee boo dee wootee da dem ci ñoom nga ni leen man. non ce que je veux dire par mooy que euh, euh, euh, je de mouvement ci la en fait. Ah. dire est-ce que bi ngeen def mouvement bi. Mhm. ne ay géew la ko sos. Mhm. ah dëgg la idée mën na maanaam puso bu leeree mag mën na ko for xale mën na ko for. Mhm. maanaam puso bi yéen a ko for ba am initiative ba mais est-ce que woo ngeen ci ñooñu wala déggoo ci ak ñoom même su leen suñ amee seen aval waaw ou déet di ko def mais est-ce que déggoo ngeen wax nga leen informer nga leen ku ci mel ne ay Mbaye Dieye Faye wala Salam Diallo ay ñeneen ak ñeneen. dèjà mm-hmm. ñi nga wax noonu maa ngi leen di nuyu bu wër. parce que mm-hmm. ñoom suñuy kilifa lañ ci aar. Mm-hmm. waaye tamit suñuy xarit lañ ci aar. absolument tey lii ñu def ñun tey. que ñoom yëg nañ ko. que yëguñu ko. ñoom buñ ko déggee. ñoom xam nañ lu lu yenu maanaa dañ ciy ànd ñun. te man xam naa ni. combat bi. ñoom képp kuy artiste. te bëgg lu baax te di kay xale yi xaj na dan la waxal. li nga waroon a wax. waaye man jàpp naa ni bi ñu taxawee ñun dan ni parce que ñu bari dañu yaakaar ni mouvement ci lañ. dafa juddu avant lii déedéet bien vrai que ni ñi ngi doon def suñuy participer. en tant que nit bu dëkk ci dëkk. dëgg la maanaam ci lañ. Mhm. yàgg nañ cee boole suñu maanaam suñu bopp ci réew mi. Mhm. que ci lañ réew mi dañ ci am wàll. moo tax ñu daan def doon ci lañ. quoi waaw da ngeen doon dem noonu rek. amoon dañ rek tey dara xew na. Mhm. Euh, ci réew mi lañ bokk. ci lañu dañoo war a def dara loo xamante ni pour wane ni. lii kat ñun am nañ ci wàll. d'accord mais tey man jàpp naa ni ñooñu ngay wax noonu tey. Mm-hmm. que ce soit Mbaye Dièye fay mm-hmm. wala salaam Diallo. Mm-hmm. wala keneen ku mu mën di doon Bakane Seck. xam nga que monsieur Pathé Mbaye. ko ci laa. Adama Ngom tey bu may lim du ma sax matal. mais ñun dañoo am ay kilifa yoo xamante ni tey ñoom dañoo am lu rëy lu ñu def ci aar. waaye tamit ñun it ay xale lañ. yàgg na leen a suivre xam nañ ni ñun du ñu def dara loo xamante ni à ñoom tey bu ñu ko déggee. Hmm. dan naan accam déedéet. parce que man tey jàpp naa ni tey bu élection tey amoon du damay dem ci kenn ci ñoom ni la kan laa war a votel duma def loolu. parce que hmm. nag ku ci ne am nga droit wu wax li nga xamante ni moom nga gis te moom nga sentir. Hmm. tey ni ma defee woon mooso ni resté bu toog leen seen kër. expliquer corona dafay lii corona dafay laa. ba ñoom ñu dégg ko apprécier. bi ñu déggaatee lii tamit ñoom noonu la ñu def apprécier. d' accord léegi kon morceau bi bi ngeen koy def ak euh, euh, soi-disant marche bi xam naa loolu di nga ko ci leeral itam woo ngeen leen parce que mos naa dégg ci CECA muy wax ni woo na fi Mbaye Dieye fay bu la neexee. Mhm. man bi may woote. Mhm. ñun bi ñuy woote. Mhm. ñi dañoo bëgg képp koo xamante ne bii géwal nga. képp koo xamante ni artiste nga. Mhm. président day gis nañ ni mu ngi bàyyi secteur yu bari. Mhm. wutal leen solution pour ñu dem liggéey. Mhm. waaye ñun tamit ci loolu lañu ñu bokk. ñu ñun dañoo bëgg ñu wax ñu. naka la ñuy def ba mën a liggéey. loolu nag mënuñu ko def te génnuñu yëglu ba ñu wax ñu ba xam dañoo fàtte waaw wala déet. d'accord jàpp naa ne kon képp kuy artiste wala ngay géwal. déggoon nga woote boobu. da di kay ñu ci bari xaj na gëmuñu ko woon. ok voilà nit ñu ci bari dañoo ragaloon. Mhm. parce que période bi ñu ko defee tamit xaj na dafa dafa xawoon a diis. Mhm. parce que ñu bari ñu ngi doon. et puis da ngeen ko def juste après nag mbay si ngeen am fit lool ne da ngeen di woote marche bu bu ah, kii bi nii. arène ay arène bi la nii. waa xam nga nag ñun doomu alkaati lañu man sama papa. Mhm. mi ngi nekkoon intérieur. def na trente cinq de police. xam nga am fit def non non non <laughs> déedéet euh, euh. parce que loolu taxul. ngay def naka sulu noonu. Hmm. man lépp lu yoon di tere kenn du ma ci gis. da nga war a jiitu nag lu di tere di nga bañ koo def. xam nga hmm. lépp loo xamante ni tey boo ko defee. Hmm. am ak problème ak yoon a ah, man dey maa ngi ñaan yàlla. du ma ko def te heure bu ma xëyee. ci loolu laay dox. mais xamul tax ñun ñu am fitu def loolu. dañu dégg ñu ni réunion publique yi nga xamante ni dañ ko interdit léegi tijji nañ ko réunion publique. parce que yooyu yëpp dañ ko interdit woon. Mhm. réunion publique. wala nga war a def conférence de presse yooyu yëpp dañ ko tëjoon mais dañ ko tëjji. moo tax ñun dañoo def loo xamante ni acte noble la. Mhm. dañoo génn ñaxtu wax. tey ñu bari ñu ngi naan lu tax ba seen mbokk géwél yi nangam mais ñun tey bi ñuy jug di wax waxuñu woon pour waxal pour wax ñun rek ak géwél yi. parce que mhm. kon doo am sens. mais li ñu bëggoon mooy génn dafa am ñoo xamante ni ñooñu lañ doon waxal. te li am solo mooy li ñu bëggoon a wax ñi ko war a jox jot jot nañ ko. mais mais li ngeen doon def marche la wala lan la parce que ñu bëri mbéy si ñu ngi doon laaj parce que gis nañ fa mbooloo gis nañ fa camion de sonorisation. gis nañ fa plat presse ñu bëri ñi ngi doon wax parce que yéen tamit nag neexu ba neewee macha allah seen loolu da ngeen cee am ah, la ngeen doon def yéen. ñun li ñu doon def mooy yëglu yëglu la tudd. ma mais tey mais ku mu neex. Mhm. nga tuddee ko nu la neex. ah yéen da ngeen doon bataille psychologique. ndax nit ñi mais tey am na ñoo xamante ni mhm. dañuy bind grève mhm. waaye grève ànd ak sànnante xeer. Mhm. grève day ànd ak wax ju ñaaw grève pacifique am na. xam nga ah. mais ñun. Mhm. déggoo benn yoon wax ju ñaaw. ñun dañ ni sunu xam xamal sunu ñaxtu wii. Mhm. bokkut ak yi fi daan am bii bu géwël mais amoon ngeen itinéraire ne fii ngeen di fii ngeen di waa xam nga ñun tey. boo seetaanee image yi. di nga xamante ni fa ñu woote woon. muy buntu arène national fa la ñu taxaw bien vrai que ni am na ñu yaakaaroon ne xaj na dañuy def leneen. mooy taal ay pneu. mooy baax mais mesures yi tamit gars yi ñi ngi doon jaxasoo foofu te am nañu solo loolu masque. waaw mais dama ni. Mhm. xam nga loolu c'est pas loolu c'est pas méchant. Mhm. parce que tey ñun ci réew mi lañ dëkk. Mhm. xam nañu bu baax naka lañuy ñuy def. la preuve génn nañu wax nañu lu ñu war a wax déggoo fa baat bu ñaaw. gisoo fa dara lu ñaaw te tamit teewuñu fa nit ñi. taada mais dara leeru leen foofu mbay si ne amoon na ay cas communautaire. non non non. déedéet. loolu du am. parce Euh, bu ñu xëyee ci suba ji. Mhm. Ablaye Timbo moo ñu njëkk woo. bu Pikine ñu koy nuyu bu baax. Mhm. parce que dafa dégg affaire bi préfet dégg ko ñu wooñu ci saase jox ñu audience ci saase ñu ñëw ñu ni ñu dañoo dégg ni nangam lan moo xew ñu tegal leen morso bi nii leen ñun li ñuy def lii la. Ablaye timboo ak préfet. Ablaye timboo mhm. parce que réeroo wu ci ak préfet. réeroo wu tamit ak commissaire. ok bi ñu ko dégloo ñoom. Euh, timboo dani mosuma gis lu mel nii ci loo xamante ni dafa am richesse. Mhm. parce que yéen wane ngeen ni géwal fa mu nekkoon ba tey ma nga fa message yi déborder wax ngeen seen soxla te man timboo day bi ma ko déggee comprendre naa. Mhm. te tey duma tëdd mukk ci lal te ñi ma superieur jotuñu ko. Mhm. am ngeen sono bu ngeen ko teg ñu ne ko ah dañ ni woon bu ñu jugee fii la ñu dem woowi sono mu ni da d'ailleurs maa leen di jox sono bi ngeen koy euh, maanaam sono bi leen di accompagner. Mhm. sono bi ñu fa tegoon. di ci mhm. wax Ablaye timboo moo ko def. waaw ah, d' euh, léegi bi ngeen paree ci loolu. Mhm. lan ngeen ci am loo ci gagné. liñ ci gagné mooy liñ ci sax foogul woon parce que dañoo yaakaaroon ni rek dañuy wax mais kenn duñu faale mais dara gënta neex ngay wax ak say kilifa. ñu walla ni la dégg nañu la. te li ngeen wax seen droit la bi taf. ku ne xam na ni liggéey mooy yoru réew. dëgg la réew du dox mukk te ndaw yi jug ñu dem liggéey. Mm. te ñun li ñu def. moo mm. xaat ko fi encore une fois parce que may nit ki jën. Mm. jàng euh, bàyyi ko mu nappi moo ko gën. dëgg te wax dëgg yàlla ci réew mi laa dëkk. ñaanuma kenn soxlawuñu ku ñu may li ñu bëgg mooy ñi ngi wutal ñëpp système bu ñu liggéeyee. toog nañu trois mois te liggéeyuñu. dañoo bëgg a liggéeyi ah lii de xeexu noobul la. koo xamante ni tey responsable nga. Mhm. tey ba ci Macky Sall tey bu ko déggoon amul ci dara lu muy wax. lu ah, Macky foofu dégg na parce que ministre bi accueillir na leen di. waaw mais ministre bi dañ koy gërëm di ko sant ci. acte ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye waaw. ko sant ci acte noble boobu mu def. Mhm. man de ba ma fa jugee ba tey. Mhm. dama dama jàngaat ci moom ci leleen lan ngeen fa lan fa tënk bi ngeen fa demee. waaw bi ñu fa demee. d'abord dañu gis nit bu dal. waaye nit bu responsable waaye nit boo xamante ni macha allah nit bu am taalibe. nit bu am yar. bien vrai que ni tey bu ko nekkoon mu mel neneen wane ni man la diw. mais imaginal tey lu mel ni ministre de l' ñu koy nuyu Aly Ngouille dégg ay xale di ñaxtu. tey mu encouragé ñu encouragé ñu weesuwul mooy dégg ay nit yuy jooy. ci sa njaboot. ni dañoo bëgg liggéey ñu leen xaaral ñu ñu jëm leen a xool naka la leen di may pour ngeen mën a toog ay xale ni bëgguñu ku ñu may. mais dañoo bëgg a dem liggéey. nga woo leen ba ñu ñëw ñu dégg nañu seen kàddu. da ngeen a bëgg a liggéey wax dëgg yàlla yërëm nañu leen ci li ngeen di ñaxtu. moom ministre Aly Ngouille Ndiaye moo leen wax moom ministre ci boppam xamal mm-hmm. ni ñu. Mm-hmm. président ci boppam dafa si dem sax ba yërëm askan wi. ndax li xew nii. Mm-hmm. parce que ñun dañoo yaakaaroon ni affaire bi day ñëw rek ñu def couvre-feu maanaam xeex ak moom mu daw génn. mais def nañu moyens yu bari. tey jii tali yeeg nangam ki i sàngam même ñoom seen éléments yi dañoo mujj dem ba sonn parce que lii musta ci réew mi. kon bu loolu amee trois mois liggéey amul ñoom tey bu fekkoon nii lii am nii daf leen a neex. kon ñun dañuy continuer sunu kii mais dañoo xamal que ni lii am nii ñoom la njëkk a metti te tamit wax dëgg yàlla dem nañu ba yërëm réew mi. après lu leen yi ñi ngi jéem a xool système bu leen wutalee comme ñu koy wutalee ñëpp. ba hmm. ngeen mën a dem génn dem liggéey. moom ministre ale Ndiaye moom ministre Aliou Ndiaye. Hmm. ma koy saluer nag ci geste noble boobu mu def. Hmm. parce que moom tey du sunu tutelle tey bu ko neexoon tey. du ñu recevoir. parce que ministre de la culture. moom moo ñu waroon mais kooku ba léegi yéen bi ngeen defee woo na leen wala. moom tamit ñi ngi koy saluer. parce que démb la ñu recevoir. démb démb. ah kon tamit dem ngeen ci ministre de la culture. démb la ñu woo ñu ñëw mu toogandoog ñun. ñi ngi ñi ngi ci lan tey. Euh, ñi ngi ci mercredi. kon mardi ngeen fa demoon. mardi d' accord. ñu dem ko moom tamit toog ak moom waxtaan ak moom wax dëgg yàlla man li ma foogoon dama yaakaaroon ni xaj na affaire bi gars yi boo. Euh, boo waxee nag am na ñu nanguwul ci seen mouvement bi de am na ñu bëri ñu nanguwul. waaw xam nga nag parce que nee na gars yi da ngeen ko doon politiquer léegi dem ngeen ci ministre bi parce que xam nga ay wax day judd rek ma mbay si. Mm-hmm. Euh, ñenn dañ dañ dem ci ministre bi jox na leen xaalis dégguñu leen après démb dem ngeen yaa ma wax léegi ne dem ngeen ci ministre de la culture. Mm-hmm. alors euh, yoon la nag nga leeral ak gars yi ak ñi nanguwul yëpp. waaw xam nga nag tey ñun. Mm-hmm. xam nga ku toog nga ni ku yor sa ndimbal teeku. soxlawuñu ku ñu may xaar ñu ku ñu may li ñu soxla mooy dañoo bëgg a liggéey dañoo bëgg ku ñu wax naka lañ mën a liggéeyee. Mhm. parce que toogaay bi yàgg na kooku yaakaar naa ne xaalis taxul la jóg. ah mais ministre bi leen dara ñaari xaaral rek ma expliqué rek. Mhm. tey ñu bari fii di leeral fii. Mhm. ñu bari ñu ngi naan li leen ministre bi jox kees yi. xam nga tey xaalis ah, kenn bokkal na leen ñu bari loolu tey tey xaalis kenn du ko def ci kees. ministre bi bu mu déggee suñu combat. loolu ñu gis tey jii tey après naa la envoyé photo tey nga tegal ko gars yi. ñu xool ay masque la ñu jox. masque kese. masque yooyu nga gis noonu. waaw mais parce que fi mu ne nii masque yooyu masque sax lu am importance la waaw mais gars yi dañ doon séntu xaalis nag non parce que moom tey même bu fekkee ni xaalis mhm. tey donoom am du moom moo ñu war a jox xaalis parce que moom non passe jox leen ay deux millions trois millions de passe waa xaaral rek la dama lay expliquer rek mhm. moom tey acte noble bi mu def mooy mhm. xam na ni ci période masque la ñu toll ci période gel la ñu toll moom ci boppam bi mu ñu woowee ba ñu ñëw ba mu déglu ñu xamal ni ñu wax dëgg yàlla li ngeen di kaas seen droit la parce que dañoo bëgg liggéey liggéey mooy doxalum réew. Mhm. tey mu ngeen a kaas leneen. Mhm. mais dañoo bëgg liggéey comme nag dégg na leen dinañ leen wutal. Mhm. solution pour ngeen liggéey. waaye nag masque yi ñu jox ay cax la parce que dani benn kees bi. Ah, parce que bi ñuy dem dañoo ànd ak suñu papa Xarim sàmm moom moom benn kees bi. beneen kees bi mouvement ci lañ ñoo ko moom. ay keesu masque la kees bu ci nekk. def na mille masques tey masque yooyu man moom laa jël war ko séddale. waa mouvement ci lañ tey sunu papa Xarim Samb ak euh, sunu papa Lamine Thiam mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu baax ñoom it seen kees dañ koy jël séddale ko te loolu rek tey gii ñaax la que maanaam kat lii nii mooy faj nangam. Mm-hmm. xam mm-hmm. ngeen gën a respecté mesures mm-hmm. moom foofu cax bi mooy na ngeen gën a respecté mesure barrière. wax léegi ma bëgg a xam ci loolu noonu la c'est-à-dire c'est important parce que itam dañuy saluer geste boobu noonu ah, nga def mesure euh, ñuy wax jox nañ leen ko est-ce que jox nañ leen réellement xaalis bi ngeen di dem. waaw xam nga tey. mënoo euh, mu jox la xaalis. tey nga toog ci télé. non man laajuma somme bi ba xam jox na la somme rek. waaw waaw waaw waaw xaaral rek. dama expliqué tey bu ñu joxoon xaalis. Mm-hmm. ñun dinañ rus que ni euh, ñoom ñu ni seetaan ñu ni jox ñu nu xaalis. dëgg la xam nga la. Mm-hmm. déggoo ma ni la. Mm-hmm. li ñu jox. moom moom mooy li ñu wax te man xam naa ni ñoom ni ñu ngi ñuy seetaan. ok xam nga la donc kon ñun xanaa nag du ñu def loo xamante ni. ah parce que ministre bi da koy seetaan moom. waaw léegi bi nga demee ci ministre de la culture moom itam. ministre de la culture moom tamit geste noble bi mu def. dégg ko ñu toog waxtaan ak moom. mu xamal ne ñu effectivement. li ngeen di wax ñi tey moo ñu ëppal solo. Mhm. fuuf <coughs> toog bi di xaar. Mhm. parce que bien vrai que nii wax nañu some bi nga xamante ni tey état def ko génne. Mhm. pour war ko jàppale artistes yi mais ñoom bi ñu waxtaanee euh, moom mu waxtaan ak ñun li mu ñu wax tey ñun waa mouvement ci lañ man di wax dëgg yàlla sama waxi démb rek mooy sama waxi tey man ak keneen koo xamante ni comprendre nga. lan mooy culture. bi taf yow yaa ngi ci culture. ñun ñëpp ñu ci culture. tey 3 milliards. Mhm. xat na boo koy dégg somme la boo xamante ni di nga xam ni. ah artistes yi ñu bëree moom a séddoo mhm. dëkk bi li fi nekk ci rappeur. imaginel li fi nekk ci waykat. Mhm. li fi nekk ci ay arco. ñi fi nekk ci wàllum euh, maanaam cinéma. ñi fi nekk ci wàllum théâtre ñi fi nekk ci wàllum ñi nga xamante ni ñooy bind taalif. ñi fi nekk ci wàllum ñi nga xamante ni ñooy jàng. ñi fi nekk ci wàllu fecckat. ñi fi nekk ci wàllu tëggkat. Mm-hmm. tey ñi fi nekk ci wàllu technicien. artistes yi d'une manière générale quoi. dafa bari. Mm-hmm. tey 3 milliards loolu tey boo ko séddale woon. Mm-hmm. ku ne du am vingt millions. yow jotagoo ci trois milliards. non man xaaruma loolu soxlawuma ko sax. non mais waaw mën nga ko bañ a soxla mais sa loo xam ne da nga a a jot. Mhm. Mhm. mais loolu nag nag yàlla loolu. dix ñun ñoo loolu nag. Mhm. wax dëgg yàlla loolu ñun dañ ko jël jàppale waat ko état. mais moom ministre bi joxu leen ay keesu masque wala keesu xaalis. waaw moom li mu ñu wax mooy ñi ngi jéem a waxtaan. Mhm. parce que li ngeen di xeex. Mhm. seen droit la te wax dëgg yàlla ñi ngi jéem a xool naka la ñu mën a def. Mhm. comme yéen nee ngeen liggéey yi ngeen bëgg dinañ xool naka la ñuy def ba mu yéen ngeen mën a liggéey. d'accord man nag métti bi ma ci am mooy. ngay wax en tant que ku dénk ay nit. Euh, benn responsabilité bi. muy état ngay wax. ñu dégg li nga wax woolu la ku ah, parce que am na ñu ko bëgg am amaguñ ko de loolu tey am na ñoo xamante ni amuñu loolu mhm. tey ñun tey loolu noonu ci yow ci yow tey loo xamante ni amagul maanaam ñun bi ñuy tudd ci lañ amagul une semaine. d' accord pour ñu tëj parenthèse rapidement question la boo xam ne may dama lay la kii direct jox na leen xaalis waaw wala déet. ministre tamit joxuñu xaalis. d' accord euh, important toujours ñu ngi dalal Mbaye Sy Ndiaye wax ji leer na et puis ñu d' ci beneen bi mooy euh, ñu bëri dañ doon ne dañuy dañuy dañu gis seen leader bi nekk Ramdan di Waly Balago Seck euh, macha allah bi ñu woowee waxee bi ñu defee état d' urgence assorti donc foofa bokk na ci njëkk artistes yi njëkk a génn way moom Waly Seck waaye itam def geste joxe. valeur cinq millions ñu gis tamit mu def ay offre yu bëri lu jëm ci xaalis masque et tout ça euh, maye limousine tout ça après bu ñu leen déggee yéen bon je parle pas d'une manière générale ci lañ Mbaye Sy Ndiaye Benjamin jugaat di def loolu ñu bëri dañ naan est-ce que euh, amul contradictoire entre vous yéen ñooñu muy maye après yéen ngeen di demandé. waaw non non non. nga ñun demandé wuñu mm-hmm. parce que tey man dama contrôle sax. Mm-hmm. te sax duma sax contre. Mm-hmm. parce que nit Euh, réew réewu démocratie lañ nekk. Mhm. tey ku mu nekk nga ni sonn nañu. Mhm. nañ ñu dimbali jàppale ñu. Mhm. may ñu mais ñun waxuñu may leen ñu dañ ni nañ ñu wutal solution. ñu dem ngeen liggéey d'accord tey Wally Seck ma koy nuyu. moom sama rakk la. papaam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. ah waaw macha allah noonu lañ demee man ak moom macha allah mu nekk xale bu am jom. waaye xale bu xam lan mooy responsabilité. tey bi corona dugg see ñu bari dañ ni bu ko kenn way waaye nit ñi juguñu woon pour way corona. mais doon doon loolu maam Gor ko waxoon di maanaam bu kenn way corona. waa xaj na moom booba. Mhm. Euh, moom tamit ñu koy nuyuwaale. Mhm. moom booba xaj na yaakaaroon ni affaire la boo xamante ni dafay dugg pour dem. d'accord nit ñi juguñu pour way corona encore une fois. Mhm. nit ñi dañ doon wax naka la ñuy. mooy sensibiliser quoi naka la ñuy moytoo corona. ak corona lan lan la lan la capable pour def ko. tey Wally Seck moo njëkk a jug. Mm-hmm. jàppale état ci combat bi. Mm-hmm. bi mu ko defee ñëpp dañoo comprendre que ni ah kii kat li mu wax ay message la def pour naka la ñuy moytoo corona ak it feebar bi li mu mën a def. Mm-hmm. ñun ci lañ ñee càpp ñun jug. ñun waa Njin Prodac xam nga def ko jàppale ko ci combat bi rappeurs yi jug keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen jug. mais juguñu pour way corona. mais mais ñun dañoo way naka la ñuy. def bu mucc ci corona ak corona li muy def ainsi de ba tax nit ñi mën a comprendre. pour ba pare nag ngeen xeex ngeen ñu utal leen ñu bàyyi leen ngeen dem. liggéey waaw ñu demee ba ci biir. Mm. du dañoo ñëwaat pour di. ñaan mm-hmm. ni nañ ñu may. déggoo li ma wax. Mm-hmm. ñu bari biñ ko déggee. Mm-hmm. dañoo yaakaar ni xaj na leneen la. mais ñu li ñu wax mooy. soxlawuñu ku ñu dimbali. bi taf ku ne xam na ni borom kër bu toog. tey ku nekk rek ah, na nga ko natt na nga ko ci sa bopp mm-hmm. ñu ni la tëjal sa bureau mais yéen ma dégg na Wally jox na leen ay rafetaay rafetaay ma xaalis ak yooyu yëpp macha allah loolu leneen la ñun Ramadan la ñu ne mm-hmm. mooy group bi groupe groupe bi gën a dox Sénégal macha allah te mm-hmm. mooy groupe bi nga xamante ni leader bi ak ay musicien dafa am compliqué bu am seen diggante ñun ban ne càpp ñun amuñu problème mais tey du caagi ni may si dafay toog rek amul problème rek tey du waxal ñi ci suuf tey ñi ci suuf fa ñu toll. Mhm. mbay si dafa tolloon. kon man xam naa ñi ci suuf tey li ñuy dund lu mu doon. Mhm. tey man li may li may xeex. du du dama koy xeex pour man. Mhm. mais dama koy xeexal en tant que nit bu bokk ci dara. nekk ci porte de voix war koo xeexal ki nga xamante ni tey maanaam tey bu mënoon a wax ñu dégg ko day jug tey dem waxal boppam ñu dégg ko. waaye ñun tey dañoo war a waxal ñooñu. ba ñu ñu war a dégg dégguñu. ndax toog trois mois liggéeyoo quatrième mois bi war a ñëw war a doon tabaski tabaski c'est dans un mois. bi taf te tey booy yu bari mais seen i kër ñoo ko yor. dëgg la xamal ñooy joxe maanaam seen i kër dépense. Mhm. seen i appartement wala seen yaay fi ñu dëkk ñoo koy fay seeni i courant seen ndox ñoom ñoo koy fay. xamal seen i xaru tabaski ñoom ñoo ko daan jënd. Mhm. jëndal seeni i papa jëndal seen i yaay. Mhm. mais jëndal seen i jabar. ami doom mais ñooñu tey est ce que bu tabaski jotee te liggéeyuñu est ce que dañuy xaar di xaar est ce que ñoom dañuy toog di xaar état pour mu indi leen xar. mais kon kon. nan leen bàyyi ñoom ñu dem dem defi seen liggéey. bu ko defee dinañ mën a am njëgu xar. am njëgu jasineer. macha allah euh, euh, mm, dama bëgg ñu tëj nag parenthèse ci lañ. rapidement jotoon naa ko brosser ci samay questions yi njëkk. jusqu'à présent mag yi woo nañ leen Mbaye Dieye Faye Salam euh, ñoom Godzilla et j'en passe est-ce que ba léegi woo nañ leen. wala déggoo ngeen ak ñoom surtout Mbaye Dieye Faye mi nga xam ni dafa ñu bëri dañ ko remarqué ci lu jëm ci wàllum taasu ak milieu géwél gi bi ngeen bi ngeen di kaas. waaw Mbaye bu baax. man déggaguma ko. d'accord mais dégg naa salaam Diallo. Hmm. mu woote wax dégg naa Moussa Traoré. Hmm. dégg naa Aliou Seck. Hmm. bu ma limee du ma du ma du ma matal. man ma ngi géwël yëpp. fii ba Europe ba Amérique ba Asie fépp. maa ngi dégg gars yi di dégg sax tey ku mel ni sunu papa Maajoor nekk ba Lougaloo. waa Mbacke. waa Mbour. waa états uni waa. maanaam géwëlu Sénégal waa àdduna bi. waa famille Doudou Ndiaye Rose ñoom ñëpp ñu ngi leen di dégg. tey man jàpp naa ni mouvement ci lañ bii. ku bëgg lu baax. wala nga bëgg mais est-ce que di ngeen continuer mouvement bi même bu corona bi jeexee. ah mais bien sûr. mouvement lañ mais nag ci lañ ji. Hmm. li ko tax a jug mooy lépp lu am fulla incha allah dinañ ci gis mouvement ci lañ lépp luy àq ak yelleef. Hmm. lu artiste war a moom. d'accord te ñu war ko ko jox. Hmm. dinañ ci gis mouvement ci lañ. jug nag ñëpp topp la yombul. ndax ndax nag Serigne Touba Xaadim Rasul. mooy sunu Serigne. bi mu dem ci géej gi ñëpp juguñu woon topp ko waaye tey bi mu demee. ba ñibbi si ñëpp ñoo jariñu kon ñun tey li ñuy xeex ku ci àndut ak ñun it tamit am nañu yaakaar ni bis bu ñu ko gañee ñëpp dinañ ci jariñu loolu rek moo ñu amal solo parce que tey njiitu réew sax ñëpp ànduñoo ak moom. d'accord waaye nag majeure partie bi tey mën naa ni ah, maanaam soixante quinze pour cent yëpp artistes yi. Mhm. ñun la ñu àndal ndax boobu ba tey nit ñaa ngi ñuy woo te ñi adhéré dafa bëri trop macha allah. ñu ciy sant yàlla nag. parce que tey tey bu nekkoon intérêt personnel. Mhm. xaj na ñëpp tey jii du ñu bëgg a bokk. mais tey ñëpp dañoo jug pour àndandoo ak ñun waykat yi di nuyu bu baax ñi nga xamante ni ay ay ñoom tonton Ousmane. Keba Seck ma Penda Seck ñoom ñëpp suñu yaay Ndey Faatu Njaay xool bu ma limee du ma matal ñoom ñëpp ñu ngi ci biir boobu laa ci lañ euh, lu am importance ngi noonu donc itam euh, gis nañu leer na parce que li leen da moon leer na itam mais yow sax yaa ngi mouvement ci lañ waaw ci lañ <laughs> <laughs> alors damay ñëw ci actualité boo xam ne dafa laal raam daan laam laal lépp liñ seen seen seen seen manager Ndiaga Euro euh, bi ñu wax ji juddoo dañ ko sàcc ay xaalis ak valeur quelques millions ñu génnaat ne ci ñi ko jege la loolu bi nga déggee info bi naka la la def waaw njaga euh, sunu mag la. Mhm. waaye euh, nit bu am jom la. Ah. liggéeykat la. Mhm. macha allah avant muy nekk Ramadan. Mhm. liggéeykat la ndax ku dégg tur njaga euro yaakaar naa ni euh, bañ koy dégg yàgg na trop. absolument mu nekkoon aéroport ba tey mu yor ay société boppam di nekkoon donc ay ñi nga xamante ni ay xale di leen former di leen jàngal naka lañuy liggéey tey yaakaar naa ni liggéeykat moom. Mm-hmm. ku jël alalam it. Mm-hmm. Euh, nga xam ni laal nga alalu liggéeykat. Mm-hmm. wax dëgg yàlla li mu liggéey. mu lew ko lool kenn déggu ko ci dara. loolu muy liggéeyal boppam ku ko képp koo xamante ni laal nga euh, yëfi euh, liggéeykat. tôt ou li nga gis nii kat. laa nga dégg ñu naan entourage bi eh, defu leen ak jaaxle yéen ñi nga xam ne yéen a nekk daan ñi nekk ak moom et tout ça. waaw mm-hmm. mais euh, xam nga mbir la moo xamante ni tey mm-hmm. ñun amaguñ ci euh, ci bu boo xamante ni lu leer la. Mm-hmm. li am solo daal mooy. police. di gërëm foofu maanaam sunu sunu police yu réew. macha allah ci xarañ bi ñu xarañ. parce que tey ay nit yu jël dara mu am ay weer. tey ñun ñëpp ñu génne woon ci suñu xel bu ñu demaatee ba nga xamante ni nee nañu ñi ngi maanaam def nañ enquête ba ñu ngi leen di teg loxo mu nekk ci loxo yi yoon tey mënuñu cee xuus parce que tey jii ba tey jii yoon mhm. mi ngi ci def liggéeyam pareegu ci mhm. bien vrai que ni am na ñun ci jàpp ñoo xamante ni tey mhm. te affaire moom buñ ci jàppee kenn rek tey am nañu yaakaar ne dinañ jàpp ñëpp ah ah di ñaan ñu jàpp ñëpp te mu leer ba nga xamante ni tey moom dina mën a voilà dina mën a noonu xel yi dal na. Hmm. parce que tey ba ba ñu déggee rek càpp ni. Hmm. jàpp nañu. non su ma nee xel yi dal na parce que bu ñu nee entourage bi moom duñ bàyyi waaw tey jii. Hmm. képp koo xamante ni tey takk nga ci. wala tey jii nga laal jàppal ni même bu ñu egseegul ci yow it. danañ fa egsi yoon dina egsi ci yow. foofu nag ñu ciy gërëm suñu police. di wax ni wax dëgg yàlla. Euh, li may wax rek. na na xale yi dem liggéey yi liggéey mooy tax ba boo gisee alalu jàmbur doo ko laal. réew mënut a dox. sans liggéey. képp koo xamante ni yaa ngi xëy di toog laajal sa droit loo bëgg a liggéey nga wax ko ñu bàyyi la nga dem liggéey te nga war wër di yaakaar ni xale su jàmbur nit ki da nga. ak di dem ngénte yuñ la woowu. voilà surtout loolu surtout loolu mooy li fàllu. di dem ci ngénte gis nga tey sama papa Aliou Ndiaye lu tax ma ni. Hmm. def naa ko bàyyi def naa ko lépp. te ma wax lu am ah, solo ministre de l'intérieur boobaa. xool da ngay neexle rek. non non du ah. neexle parce que dama ni. Hmm. man xaalisu te nii lañ ma ngentee man dañ ma yar avant may xam kenn du ma laal alal jàmbur du ma teg sama bët ci alalu jàmbur man ba ma juddoo ba tey liggéey laa xam macha allah tey bu ma faroon xaalisu jàmbur sax dinaa ni kan moom moom lii mhm. damaa naqari deret fi may gis nii waaw parce que foofu bëggoon naa la ci sooñ la tuuti du tooñ la tuuti mhm. euh, ñëpp ne nañ mbéy si dafa metti mbay si euh, euh, même même parfois say sorti sax dañu ngi naan mbay si dafa metti mbay si dafa tàng xol euh, loolu moom <laughs> la demee mbay waaw mbay si dafa bañ ko ko yab. xam nga maa ngi koy wax mais nag boo jiitee mbay si dafa di seddal de. waaw mais seddal bi. Hmm. gis nga tey man damay contre nit ku naan diw di amul problème. Hmm. ankay nit nit bu am ay nit bu am ay principe rek. Hmm. am nga problème. korok maa ngi koy wax ci seen émission nee naa. dama mës a benn jour. Euh, sunu kilifa Matar Ba ñu ngi koy nuyu. Mm-hmm. tey ku ne xam nañ tey jii mooy ministre. Euh, ministre du euh, sport. xamalax sport. Mm-hmm. man sama kër ak arène bi xamalax ñoo mm-hmm. dend. dama yeewu benn jour ñu ne ma Matar Ba moo nekk ci biir ci biir arène bi. am ku ni ma doo génne say sabar nga dem ci moom nga wax ak moom ma ne ko lu may waxanteeg moom Matar Ba di ñëw fii tey Macky Sall sax sunu président bu doon ñëw sama buntu kër buñ ma woowul du ma fa dem man noonu laa mel. xamalax parce que jàpp naa ni. man fépp fuñ ma wóoyewul bu ma fa tegee sama tànk mooy maa ngi ñàkkal sama bopp. mais wàññil nag wàññil xadaar gi. waaw waaw waaw waaw njiit na léegi njiitu association mouvement ci lañ. waaw dama ni. Ah. dama bëgg a jàngal rek xale yi. Mhm. que ni mhm. dem fuñ la wóoyewul maanaam loolu euh, la fa def. Ah, yaa loolu parenthèse dem fuñ la wóoyewul la. yaa tooñ maanaam nit ki. Mhm. waroon nangu ku la may. ba pare di la humilier wala mu lay toroxal. d'accord tey man. nit laa boo xamante ne tey Big Taf boo ni moon léegi ñëwal ma teral la doo ma gis. mooy dafa mel ni danga maa dàq. man nit nit boobu laa. te nag ma eggalee ah, sunu papa Aliou Ndiaye daf ma wax lu am solo. Mm-hmm. yéen géwél yi wala yéen artistes man xam naa ni ngeen di dundee mooy da ngeen di liggéey tey am tey mais du ngeen investir ci dara da ngeen koy lekk. xamal ma ni ma xool xool xamal ma ni ma mm-hmm. boo yoree ay nen. bu ko mm-hmm. daggal ci benn peñe ndax boo ko dugalee ci peñe bi. bu peñe bi tojee. nan ah, su peñe bi daanoo lépp toj. mais boo yoree ay nen da nga koy dugal ci peñu yi yu différent ci peñu yu bari mm-hmm. boo ko defee bu bii tojee mm-hmm. bu bii daanoo toj nga mën a tourner ci beneen. waaw ah, moo tax yow yenn nen yi nga def ko ci studio bi quoi. ak feneen sax fudul fii sax. waaw nanu ñaan yàlla rek. waaw gudd fan ak wér. léegi nag conseil yooyu mu ñu jox. Mm-hmm. dafa dugg ci sunu bopp bi. ba ba tey jii ñu ngi ci travail. ba te nag ndaw soxla soxlawul lu dul ku ko conseillé di ko nuyu ci geste noble boobu mu def wax dëgg yàlla. kontaan nañu ah, parce que ñun ci nga wàññi ko may. waaw mais tempérament bi xam nga ah. tey jii ñun tey ah. waxtaan nañu. maanaam ci cadre boo xamante ni yaakaar naa ne wax nañu te kenn gisul ñu mer. waaw mais nit nag parfois bu ñu ñëwee cuuc sax bi jàll après mu sedd quoi. waaw loolu léegi yow président xam nga. waaw nga Macky son excellence gars yi parfois ñu sànni ko xeer te du tontu. waaw léegi nag yow bu bu tempéré rek ñu. man daal li ma lay wax mooy. <laughs> képp koo xamante ni daal. Ah. wax nga ak ñun ci cadre bi nga waree waxee ak ñun. incha allah du ñu gis ku mer mais nag képp ku ñu bëgg a wàcce. dina la wan ni la nag wax dëgg yàlla. ku mu mën di doon nag kii que ce man kenn du ma ñàkkal fayda. te it kenn du ñàkkal fayda sama nawle. ku mu mën di doon tey bu ma gisee ñu lay ñàkkal fayda dinaa ko. dinaa ci xeex mais tamit yow mi nga xamante ni tey yow yaa nangu ñu la ñàkk fayda dinaa la mere. jërëjëf Mbaye Sy kontaan nañ bu baax a baax. waaw tey gëm naa ni waxtaan nañ d'une manière plus large et puis lépp leer na ma bàyyi nga tàggatoo ak internet yu Dakar. waaw ak contentement. Mhm. yow bi taf ndax mhm. nag wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, may nga ñu opportunité wu ñu wax. loo xamante ni ak yaakaar naa ni tey ñu ñuy seetaan di leen mën a comprendre. lan moo tax a jóg mouvement ci lañ. te tamit dinañu comprendre lan la ñuy xeex. te loolu yëpp ci professionnalisme la. Mm-hmm. que ngay wax ak nit ki di ko may muy mën wax lu mën a tax parce que tey bu la neexoon tey nga def loolu ñu naan ruube mais defoo ko kon donc yaak ñi nga àndal ak ñi nga xamante ni ñëpp tey ñoo nekk ci wàllu site bi moo xam vigile moo xam monteur moo xam ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci kiiwu Dakar Buzz ñëpp kilifa géeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit ci ñu ci ñu yore ni mbokku internet yi tey caméraman yeeg ñëpp parce que kenn mun a dem bàyyi moromam kon kontaan nañu bëgg nañu di wax ni réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm lii nga xamante ni tamit moo fi dugg sonal ñu ba tax. Mhm. tey ku ne di jooy muy coronavirus yàlla na ko yàlla sunu borom. Mhm. sempi niw dëj. delloo ko fa nga xamante ni fa la jóge woon ba nga xamante waaw peeg yi moom fi mu ne gars yi namm nañ ko xam nga ni man tey namm naa <laughs> ay am xam ma waali foofu neex na dellu fa namm naa ay riigu riigu te yow tamit mhm. namm nga it ay fecc ay waas gis ak yooyu tey jii caméraman bi xamal waaw ñoom ñëpp namm nañu xoolal ku lakk daay gi tey jii ñi ni seetaan tamit noonu wax dëgg yàlla Sénégal réew la moo xamante mhm. dañoo tàmm di bége di kaf di foog di ree dëkku maam Alaaji Malick dëkku maam borom Touba. dëkku maanaam Seydina Limaamu mag yu baax yi ñoom ñëpp bien vrai que ni ñu ngi fi mais ñun li xam mooy CAF Foré. d'accord kon daal yàlla na yàlla def jàmm. ça a vraiment plaisir euh, de faire l'interview avec Mbaye Sy Ndiaye wax naa itam muy percussionniste nekk ci groupe bi nga xam ne moo di Ramdan waaye di président de association bi du mouvement ci lañ. Mm. waaye moom itam ñëpp koo gën xam ci tëggkatu sabar gu mag fii ci mim réew. nañu bu baax a baax waxtaan ak moom itam di kontaan ci yéen bàyyi xel bi ngeen ñu bàyyoon xel yéen internet Malick ak sama beneen copain Malick sama copain damay fàtte turam souvent a ah, Badara maa ngi koy charré moom itam di ñu ruube keroog dañoo ruube ci Papa Ndiaye Kafet bu ñu ruube ti waa dégg nga alors merci beaucoup a tout le monde jaa ngeen jëf ciao ciao